violence bi ñuy wax de newul ci làmb ji rekk te newul ci Sénégal répp soo seetloo àddina si léegi ba ci xeex ba day am fale ca Ukraine ak Russie loolu yëpp ci violence la mais lan a ko waral yaakaar naa ne suñu waree wax ci loolu la suñu dellusee ci suñu réew bi nag damay wax ne ñun ñi am yenn at yi mun nañ wax ne dañ am chance chance bi ñu amoon mooy dañ ñu yar ci kër yi yar ñu ci mbedd mi yar ñu ci école yi ak daara yi yar ñu ci bi ci biir société bi tey nag dafa mel ni gétt gi dañ ko jël rek sànni ko ci àll bi waxuñ ko ne yoon wii fii la war a jaar walla fii la jaar dafa mel ni kenn nangootul sàmm yëf yi te yàlla sax dafa wax ci alxuraan que nit ku nekk boroom kër gu nekk ëllëg dinañ ko laaj naka la doxale ak waa këram donc war nañu delloo siwaat sunu xel seet naka la ñuy doxale ba fitna yi ñu teg nangoo teg sunu bopp tegoo ko naka la ñuy def ba kii ko yaakaar naa ne suñu delloo ci yar am fulla am fayda am surtout ngor xam naka la ñuy waxe ci biir biiri nit eh, sunu waajur dafa ñu doon wax ne na ngeen góorlu bi su wax jotee ngeen mun a wax li ngeen xalaat mais ci fulla ci fayda mais surtout ci yar ci yar yar mooy base yi lépp eh, dañuy wax ne yenn ni réew yi xale yi dañ yaru déedéet discipline mooy defar societé soo xamee ne tey man Alioune Sarr mii su ma defee lii lii moo ma ciy fekk te kenn duma ci génne damay def tout pour bañ a def erreur boobu mais léegi loo wax nee naa ñaari moo bi ma ko déggee suma société laa tiit garaawul ak jéggalu garawul ak jéggalu nañ ko génne ci suñu discours